ngir gën a mën a jot ay vidéo xibaar aboneel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu les notification am boo li ñu joxe fii ci poste santé bi mën naa ne xeeb nañ ko dañoo fay joxe ñeenti lal yoo xam ne ay lal yu bees la yu moderne yoo xam ne euh, ay lits d'hôpitaux la ci ni ñu koy waxee mais yu moderne yoo xam ne courant la électronique la da ngay jël dafa am télécommande bu la neexee yëkkati ko bu la neexee mu jub bu la neexee mu ubbeeku ndax yooyu moo ne ci moom moo moom moo gën a moderne. daf ñu permettre aussi maternité bi ak ñi nga xam ne mooy ci poste santé bi mën a mën a mën a am jumtukaay yoo xam ne ñoo gën a yees te loolu caare dañ ko mérito beneen bi aussi mooy indi nañ fi ay jumtukaay yu mel ne ay bërigo ak ay yeneen accessoires yoo xam ne yu cher la loolu it ñu kii la gërëm la famille Diallo Picc bi nekk en étranger ku mel ne Mamadou Diallo ku mel ne Badara Diallo ñoom ñoo ñu ko may ci conteneur ñu mën ko yóbbul communes yi nga xam ne ñoo nekk biir caare ki jàppale population seen i jafe-jafe faju te incha allah

keroog am na 15 jours moom moo recevoir lii ñu fi indi li ci am solo mooy ñun lañuy yoonal ñun bu ñu on est assez responsable lu ñu def dara dañuy yoonal dañuy jaar fi ñu war a jaar maintenant répondre nañu répondre ñu amul solo pour ñun ndax bi ñu def fii dara boobu defuma politique damay nekkoon ci développement mën naa ne bokk naa ci ñi tabax poste santé bi man ak samay ay xarit ñoo xam ne dañu amoon si association di taxawu quartier bi ñun ñoo tabax poste santé bi ma nekk fi président lu tolloog fukki at 10 ans kon xam naa fii su ma neexoon sax du ma tàggu kenn damay ñëw rek dimbali post bi waaye ñun ay républicain la ñu dañ li ñuy def dañ koy teg ci yoon li am solo mooy maa ngi nuyu de passage ICP fi nekk mooy madame Sarr di nuyu aussi Aly mi nga xam président bi bi poste bi di nuyu aussi la présidente de la commission moom wax yëgal naa leen ko te loolu moo ci amoon solo. bi ñu ñëwee aussi gis nañ tonton di doyen bi ñoo nekkoon woon fii dëpp bi ñu tàmbale.

kon donc devoir am la mu def ko ñoo ngi koy sant di ko gërëm au au nom de du président ak ICP bi ñëpp ñu koy parce que dunoo génn moo tax ma représenté li ne mais ñoo ngi koy sant di ko di ko ñaanal yàlla gudd fan waaw ñaanal yàlla gudd fan di lu man ren yàlla man mën lu ko ëpp parce que am na lu ñu dig moom nii gën a xaar mu ñëw waaw yàlla na ko yàlla def muy ambulance waaw loolu na ko yàlla def mu ñëw suñu dispensaire bi dem ba nekk hôpital loolu daal laa amoon lu may wax si Malal di ko sant di ko gërëm nag parce que man xam naa si dara parce que ñoo débutandoo dispensaire bi ñoo ko débutandoo ba mun jeexal bàyyi ma fi waaw kon nag ñoo ngi koy sant bu baax ak waa famille ñi xam ne ñoo ñu jox lal yi waaw parce que ñoom tam day defe naa ni gàcce gaalaama parce que ñoom tam si quartier bi nun dëkk ñu sant yàlla di phase 3 ngir gën a mën a jot ay vidéo xibaar. aboneel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu les notification